alarba ñaari fan ci euh, décembre ci 2020 euh, xibaar télévision régionale tax na it ñuy delluwaat di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak la Magal, biñu Maggal, doon màggal Waloup, bi ñu jagleel euh, Sida euh, fofé ca kayré nek euh, commune bu association ARL ARLS ñom de daaj dañu delluwaat rek ci anam yuñ doon xeexee feebar bi ci atum 1992 ba bés ni ki yàlla tey euh, des cee dellu ci biir xibaar yi euh, ki nga xam ne nag mooy euh, Mamadou Diagne si Mbeng di meerub dëkk bu sell boobee di Tiwaawoon moom de xam la ne daal ànd na bu baax a baax a baax ci gis-gisub Macky Sall la yitteel nag wàllub tijjib buntub réew mi ba bëpp nit boo xam rek bokk ci yeneen parti bi ngir bugg ngir war a ñëw rek jàppale jàppale ko ci liggéey liggéey boobee Senegal, Sénégal kanam rafet laal na lool wuyu bi xam Idrissa Sek, daal wuyu son excellence le président Macky Sall euh, élément sénégalais yu euh, détachement DETSEN 8 ne bu cdao mission cdao euh, demoon nag foofee ca Guinée Bissau ginnaaw bu ñu ñibbisee daal dinañ delloo drapeau yi seen kilifa xeexe boobu nag mu nga amee woon ca base aérienne bu tey nag ci alarba bi reportage bu am solo jagleel ko la jëm nag ci wàllub njaayum xaal jamono yi fañ ca ak nu mu doxee ci période yi euh, ci période bi euh, soxna Ndeye Coumba soxna faatu Fall àndoon ak Moussa Ndaw musaa mbay ñu doon xool rek euh, ñooñi ana yan anam la ñuy liggéeyee jamono yi xibaar yi teel bitim réew ak wàllub tàggat yaram moo fa yéene ndar keppee xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige di rafetlu seen kóolute mbokk yi su ne saa ñu ñëw ci wasaak yi mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi kontaan ci yéen rawatina yi xam ne yéen a nekk ca bitim réew ngeen ñuy seytaan ci réseau bi ñuy wax IPTV waaye nag am nañu tamu suñu euh, plateforme yi ci mel page Facebook live euh, site d'information com, ak page YouTube prestige euh, doorey xibaar yi nag lay teel mbas di coronavirus bi mu duggee ci mim réew di Sénégal booba ak léegi tolloog ci juróom-ñetti weer ba tax na nag ministère de la santé de l'action sociale wala waa kër docteur rek di jëf jéego yoo xam ne dinañ tàkk feebar bi ci mim réew waaye nag tey ci alarba bi activité euh, la jëm nag ci walu wàllante bi gën naa lol lool euh, ba nak kilifa dal ragal nañ ne euh, beneen wàllawaat manam deuxième vague ñu ngay ragal mu am ci biim rew di Sénégal ki nga xam nak moy docteur Elage Hadji Mamadou Ndiaye mi xam moy docteur de la prévention nek ci ministère de la santé et de l'action sociale ñëw na daal ci tolluwaay bu miim rew ci mbass momi ñu tewlu ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique li may waaj ci junni ak juróom fukk ak ñett test yi def juróom benn fukk ak juróom benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ñi xam ne ay cas contact lañ mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore daw mu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ay ka communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll yooyu communautaire nii lañ tëddee seen lim nii la tëddee Dakar Plateau moo ci am juróom marist am ci ñeent Almadi am ñett Mermoz am ñett Nord Foire am ñett Matam am ñaar Parcelles Assainies am ñaar Thiès am ñaar Colobane am benn Diourbel am benn Fatick am benn Foundiougne am benn Liberté 5 am benn Mamel am benn Médina am benn Ngor am benn Ouakam am benn Ouest am benn Sacré-Cœur 3 am benn Saint-Louis am benn ak Touba am ci benn fanweeri malade ñi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom benn malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bu su démb benn fan ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan mbokk yi nag euh, des ba léegi ca lay teel wàllub euh, wér-gu-yaram euh, benn fan ci weerub décembre yu tombe woon nag démb nag ci altine gi la doon màggal màggal nag xeex bu ñuy xeex feebar boobee di sida mu nekk feebar boo xam ne nag sonn loon na lool askan bi ay jamono ba bés ni ki ba jamono yi sax ba léegi Euh, ba tax na nag fii ci Thiès na fofé euh, ca Kayré nek ca commune bu Thiénaba association bu ñuy duppee association rurale de lutte contre le sida euh, ñom nak ci atum 1992 ba légui dal ñu ngay wéy di xeex sida cari dëkkub kaw yi nek na nak jéego bo xamné ne def nañ ko ci ni ni mel ba tax na nag ki nga xam ne mooy soxna Marème Kairé mi xam ne mooy présidente ARLS daal dina wax nag ana yan jéego lañu taxaw ngir daan ku euh, feebar boobee di sida ñu teewlu ko ci waxtaan bu mu sëkk ak Ahmadou Bambali ak Adiba. defe naa loolu lu yomb la leen sentir ci bis bi bi ci njëkk mooy sant yàlla rek ndax yaakaar naa association yi bañ koy taxawal jamono yooya ak jamono bi ñu toll tey. defe naa am na ay changement yu rëy rëy rëy kon dañuy sant yàlla hmm? ndax ba ñuy taxawal taxawalal nañ ko trop ci ay njaqare yu bari metti ak ay ci tàngi ak ay jaaxle mais bu ñu xoolee ak taux bi fu mu toll tey kon dañu koy sant yàlla kon li ma jëkk a sentir mooy sant suñu borom. xam nga <laughs> eh, li tax eh, wax ci doomu ci siddaa bu njëkk yombul woon dañu ko yàq baat bi dañoo tëba tëb rek ne sida ci sëy lay jóge sëy lay jógee ñu gën koo ji ñenn ñi foofu la baat ba ba jafe-jafe yu baree bari foofu la doon jógee te fekk na xam ne tukkeewut noonu même bu fekkee ci sëy lay jógee am na fenn fu muy jaar fu dul sëy du dëgg kon loolu moom mbir la moo xam ne euh, euh, lu yàqal euh, sensibilisation bi la lu ci indi won ay gàllankoor la parce que loolu dafa taxan ba ñi nga xam dañ doon dund ak moom ñu bari bëgguñu woon ku leen xam dañ ko doon nëbbu te loolu moo taxoon ñu di ko nëbbu ñun nag yàlla may nañ ci jàmm quand même parce que xëy na lépp mënuñoo toog tey di ko wax fiñ ci jaar waaye li wér te wóor mooy am na ay association yoo xam ne loolu feebar bi moo leen jàpp te fexe nañ ñun ba indi leen parce que ñun ci mutuelle bi ñu nekk ñun dañ fee def benn xaalis boo xam ne ñoom lañ ko jagleel ñu ñëw di leb seen xaalis ñoom ñu dund ak doomi jàngoro bi ñëw di leb xaalis dem di liggéeyi ñëw di fay ji seen i morom di jël te am nañ ci tey ab lim boo xam ne buñ ko nga ne déedéet xam ne dañ doon dund ak doomu jàngoro bi ñëw di te la laay waxee da ñëpp di ma dégg du dëgg kon dañ jël ñëw di lepp di dem di liggéey ñoom ñu dund ak doomu jàngoro ji ñëw di fay ndax itam programme boobu ñu ngi ko amoon ak waa kii Planète Finance moo nu jàppale woon ci loolu ñu jàppale ñi nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro ji ba tey am na ci ñoo xam ne fay nañu seen i bor ba mu mat am na ñoo xam ne ñu ngi yor seen bor xëy ne di fay mataguñu am na ñoo xam ne yàlla def na ca la ko neex parce que loolu moom liggéey bi ànd waaye loolu lépp dañu ko defoon ngir jàppale askan wi ndax ñun suñu mutuelle bi boo gisee mu xaw a waroo ak yeneen mutuelle yu bari dañ cee def lu bare ci wàllu social maanaam jàppale nit ñi nga xam ne dañoo feebar ak itam éducation bu fekkee ne école baa ngi bëgg a ubbi ñuy lebal parents de élèves yi ñu mën di jëndal seen doom yi ay fourniture te du am yenn intérêt yi nga xam ne ñeneen ñi ñu ngi koy fay bu ñu demee ba jëndal seen doom yi ay fourniture ba ñu commencé jàng ñu koy fay ndànk ndànk ba keram yi mat waaw dañ ciy sóoraale social ndax social mooy dimbali. Euh, foofee ca département bu Tivaouane ci assemblée générale bi xam ne ñi fare ca parti ca coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ko amaloon euh, ca dëkk bu euh, sell boobee ba tax na nag ka nga xam ne moom mooy maire bu Tivaouane di Mamadou Diagne Sy Mbengue jëloon kàddu rek wax ne. rafetlu Luna lol and bi parti rewmi and na son excellence le président de la république Macky Sall Rafet nag rafetlu na ko rafetlu it son excellence ca mu bëgg jëmalé rewmi bokki nak ñu ànd ak ki nga xamné moy Mamadou mi maire intérêt Sénégal nit ñi nak lu ñu bëggoon moy Macky Sall ni tundum ñëpp ci opposition bi di xex ak naam bu boobaa dina leen daan ndax daan na leen daanaat leen waaye nag jàmmu Sénégal ak Sénégal fi mu jóge ci Covid bi nga xamante ni jeexagul moo tax mu ni fàtte naa sama bopp teg Sénégal sama kanam mu ni ku mel ni président réew mi Idrissa Seck kenn xaaru ko waaye tàllal naa ko sama loxo na ñëw ma ànd liggéey ak moom ku mel ni Oumar Sarr PDS kenn xaaru ko mu ni tàllal naa sama loxo na ñëw ànd liggéey ak man ñu ni Abdoulaye Gakou mu ne tàllal naa sama loxo na ñëw liggéey te des na ñeneen ak ñeneen ak mi nga xam ne njëkkoon na leen am ñun nag suñu xalaat ci mbir mi mooy que ni président li mu def dinañ ko ci jàppale ba mu mat sëkk ngir jàmmi Sénégal à commencer nag fii ci Tivaouane suñu mbokki réew mi yi si nekk nga xam ne démb ak barki démb lañ nekkoon si jàmm suñu mbokk yi nga xamante ni opposition lañ nekkoon ñu tàllal leen loxo ànd ak ñoom liggéey Tiwaawan ngir Tiwaawan jëm kanam Tiwaawan gi moom la ñu am fi lañ jàngee fi la ñu amee suñu diplôme kon tey ñun ñooy delloo Tiwaawan njukkal lépp luy taxawaay jëm ci biir Tiwaawan duñ ci sonn duñ ci tàyyi waaye tamit ñu xam ni rek suñu taxawaay jëkk ci lii ñuy def ak yéen ñépp dama bëgg mu doon d'abord mu doon d'abord jàppale la président de la République Macky Sall fësal suñu ànd ak moom wan ko ni ko wóol nañ ko xalaatam bay nañu xam nañ ni bëgg na Tiwaawan te incha allahu taala dañ koy jàppale ba mu mat sëkk

Euh, ci teewaayub kilifa ak armée ak kilifa administration euh, ba tax na nag ki nga xamné euh, mom moy lieutenant colonel Hassan Sek moom mi mo ne won mo woon won jiite détachement bobé dal dina na nak nag wat ca sen liguey fofé ca Guinée-Bissau ñu tewlu ko ci micro sergent Boubacar Diallo ak Mot Mbeng parce que man dama yoré won compagnie de protection et de soutien ak ben hôpital de niveau 2 ku ne hôpital de niveau 2 xam na ni loolu mooy mbiru docteur surtout que sax ñun dafa le Covid 19 bi dal na ci donc fànn boobu rëyoon na ci beneen fànn bi mooy ñun bi ñuy relever contingent DETSEN 7 bi fekk na ñooñu nekk si seen deuxième semaine élection présidentielle donc mbir bu njëkk bi nga xam ni bu ñu njëkk a dénk sécuriser d'abord des élections présidentielles yi nga xamoon moo amoon Guinée-Bissau

Euh, deux cent cinq la ñaar téeméer ak juróom ñaar téeméer ak benn mooy contingent bi ñeenti ñi mooy staff ba tax na ni jafe bi buñ kii woon amoon nañu mat mat yi nga xam ni tax na ni ñu jéem ko jàll war na ni déjà contingent bi dem nañ fa ba dellu ñaan yëg yëpp ànd na ci ba nga xam ni amuñu fa benn ku nga xam ni yàlla moo ne wala déjà accident bu fa am yooyu yëpp tamit euh, tey préparé nañ ko commandement bi ngi nekk yooyu waajal na leen si wàllu boobu ak yàlla jàppale ñu. mbokk nag ñu daldi di àddu ci reportage di jour maanaam euh, reportage bi teel bés bi euh, tey nag gis ngeen ne euh, ci Thiès fu ngeen toll rek ngir gis ñu jug fa ay xaal di ko jaay. xaal nag nekk euh, ab euh, gàncax boo xam ne nag dañ koy béy ci àll wi euh, gàncax googee nag mooy law suy law di def tóor-tóor bu am doom waaye nag aar ko yombul dara métti lu métti la ndax béykat yi xam nañ ca dara ba tax na nag xaal it am na loo xam ne daal da koy def la yitteel wàllub wér-gu-yaram yombal lool la jëm nag ci wàllub reesal di digestion loolee nag xaal ndekete yoo am na ni ni mel euh, ka wax na loolu nag mooy soxna faatu Fall ak Moussa Mbaye mi xam ne euh, tey ci suba ñoo xëyoon dem ca bërëb bu ñuy jaayee xaal ñu ànd ñoom ci seen reportage. si jamono ji lii di xaal bari na si réew mi footu ne si koñ di gis ay jalu xaal xaal nag bari na njëriñ loolu ci askan wi fruit la boo xam ne day raxas biir di tax li ngay lekk di gaaw a rees te it dina dimbali nit ñi si feebaru seere. deretu ren bi. waa période ren bi xaal yi macha allah mais xaw na cher tamit tuuti quoi waaw mais xaal bëri na mais ba tey prix yi dafa yokk quoi par rapport ak yu quoi daan na yomb quoi daan na bëri daan na yomb mais nii nii nii dafa cher doo xam Covid bi la doo xam lan la demee quoi mais xaal bëri na mais tamit cher na xaal bon da lay lâché de un de deux xaal boo koy lekk nii doo tooy fatiguement ak yooyu parce que laver da ngay dem. da ngay saw tout xam nga da lay da lay raxas quoi te lépp lu lay raxas rek fatiguement du nekk sa yaram. lay bi nag moo tax xaal di gën a ñoro te jamono ji ñoo ngi ci jamono yi seddaay ak xaal yi ñu gis ci dëkk bi moo ngi jóge ca Saalum bari na wante daaw la gënoon yomb. instant yi moom njaay mooy lool mais daaw moom booy seet moo dàq ndax dafa mel ni feebar bi da cee wàlli daal metti na te suñu côté njaay mi cher na client yi lañ doon jënde jëndewuñu dafay xaar ñoo ñëw jënd xaal bi rek jàppale nu ndax tamit ñun dañoo jaboot te xaal jee ñuy ci lañ ci lañ yëngu daal mooy suñu métier te xaal dafa baax ci nit baax ci yaram baax ci dundu doomu aadama ti ñun ñoo koy culture fii kon war nañ cee mën a jàpp fii lañ koy bayee waaw ay Saalum ay kii Waalo xam nga kon ci ñun la bokk waaw génn réew mi daal mën nañ cee war a mën a jàpp bu baax a baax. lekk wi lu ñu digal askan wi la te jamono ji jamonoy xaal la te ñoo ngi am yaakaar ni day woy di gën a bëri am nañu yaakaar tamit ni euh, njëg li dina gën a yomb Moussa Mbaye mbokk yi àdduna ak ca xibaar yi teel euh, biir réew mi di Sénégal tubaab di ko wax actualité nationale comme ni ma koy faral di waxee rek bés bu yàlla sàkk seen télévision di ci béy wàllu am solo ngir xamal askan bi ana lan moo xew ci biir réew mi di Sénégal Aminata Ndiaye. ñu tàmbalee xibaar yi ñeel biir réew mi ak jëwriñ ji bokk ci parti bu réew mi di Déthié Fall nga xamante ne ñetti na bokk ci ndaje yu ñuy woote ginnaaw ba mu ñàkkee teew nag ci fan yi ba ñu wootee démb itam teewul ci ndaje bi waa parti moom woote woon moom Déthié Fall nag léegi dañ ko wàccee def ko comme simple militant ëllëgam nag ci politique bi dara leeragu ci fukki at ak ñaar ba APR soso démb ci talaata ji nag lañu doon màggal at yooyu ci simplicité ndax lii di mbas mi ñuy fàttali ne parti Sall bii di APR ñi ci benn fanu décembre ci atum 2008 loolee waral nag directeur parti ba organisé woon ay xumbute ca seen màkkaan mbootaay yi bokk ci parti bi yëpp mbootaay bokk ci parti bi yëpp nag la ko dalee ca jigéen ña mag ñi cadre ci ndaw yi ba ci étudiants yeeg élèves yi ñoom ñëpp teewoon nañ ca gannaaw ba ñu wootee xaalis nag jëwriñ ji yor wàllu napp gi di Aliou wax ci feebar bi ñu nemmeeku woon fan yi te daloon nappkat yi mu ngi xamle nag ne ñu bëri wér nañu ci feebar boobule te itam ñi ngi xaarandi résultat yi ñu mën ñu firndeel lu waral bila feebar. bàkku boobee di jëmmal la yitteel wàllub euh, bitim réew gis ngeen ne it prestige muy wéy di xool ana lan moo gën a fës ca dëkk yu sori yooyee ba tax na nag tey ci alarba bi jàpp nañ ni daal euh, ca bitim réew euh, benn fan démb sax yemoon ak benn fan ci weeru décembre ci atum 1990 la ki nga xam ne moom mooy président bu Tchad di Idriss Déby Itno euh, daal di nag euh, yëkk ca nguurub dëkk boobee euh, ginnaaw bu mu nermeeloo nguurub Hissène Habré mi xam ne moom moo nekkoon président Tchad. ñu jàpp ne nag boobu ak léegi daal mu ngi tolloog ci fanweeri at boo xam ne Idrissa Idrissa Idrissa Déby Itno mu ngay doxal réew moom mi di Tchad waaye teewul nag jamono yi sax ci euh, nawet gi weesu euh, jotoon nañ ko tàbb ñu def ko nag yëkkati ko ci rang maréchal euh, moom de moom mu ngay wéy di doxal réewam waaye nag nemmeeku nañ ne daal la jëm nag ci wàllub ñaaxtu la yitteel wàllu politique ak li nga xam ne euh, moom moo yitteel yeneen euh, yelleef ak ak ak ab doomu aadama nemmeeku nañ ne daal xaw na soofee sooxee foofee euh, ca réewum Tchad waaye nag jàpp nañ ne daal Idrissa Déby noo nag bu mu toogee ci Tchad ba léegi daal mu ngi tolloog fanweeri at yàgg lool sax li jëm nag ci wàllu ñàkk bi maanaam vaccin ñàkk ngir daan feebar bi di coronavirus ay euh, laboratoire D am na yu ñu jot a génn mooy laboratoire Pfizer ak Biotech Eh, ba tax na nag réewum Royaume-Uni daal dinañ nangu dal ne ñàkk yooyee dinañ ko jël daal di ko ñàkk seen ñooñ tey sax ci alarba bi eh, dal dinañ ko fa door loolee nag nekk daal ndam ci ñi nga xam ne ñoom fur ñooy loolu nekk ndam daal ci ñi nga xam ne ñoom kilifa amérique yi xam ne rawatina kilifa eh, laboratoire laboratoire bi ñuy wax Pfizer mom kontaan nañ lool ndax nee na Euh, loolee indi na jéego daal ca la jëm nag ci ñàkk jooje waa euh, waa Royaume-Uni nag commencé nañu di ñàkk seen askan ak euh, vaccin boobu. jeexalee nag xibaar yi teel bitim réew ak suñu wet gi di Mali ñoom de dal nañu tàbb nag conseil. Euh, nationale de transition bañ ko tabbe ba noppi daal euh, jot nañu euh, samp président ci samp vice président samp it premier ministre gouvernement ba nag daal di taxaw way nak la ca dess de moy assemblée législative ba manam di député ya ñi xam ñom lañu wara tab ñu daal di doxal seen liguey ay partie yu bëri nag nee nañu ànduñu euh, ca anam ni ñu ko bëgg a defee ba tax na nag ñoom duñ ca bokk waaye nag ki nga xam ne moom mooy Soumeylou Boubèye Maïga mi xam ne nekkoon na premier ministre ca Mali nekk président parti bii di LASMA CF CFP moom de donte ne du bokk ca député ya fay nekk waaye nag ànd na nag euh, ci ci ànd na nag euh, ne représentant ànd na ànd na daal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy. Euh, conseil de transition Bobé. xamné nak nag ñoo bëgg euh, samp euh, future assemblée Bobé. nee nak and na ci mom nak dal bokul ak ñi xamné ñom ñoo ñoo ko bakku bobé di jëmmal lay teel walu tàggat yaram bés bu yalla sàkk nak seen télévision régionale di ca walu am solo. la ca gën a fës ci bésub alarba bi yemook ñaari fan ci ñu ànd ci Alaaji Fallu Ndaw dooree di waxaat rek ci génnëpp àddina internationale bii di Pape Bouba Diop mi nga xam ne euh, moo génn àddina dimanche bi ñu euh, génn moom nag jàpp nañ rek ne euh, néewam war na mun a yegg si Dakar àjjuma ak jàmm kii nga xam ne nag mooy ministre des sports Matar Ba moom day joxe na ay assurance ne rek dinañ def lépp ba nga xam ne néewam dina yegg si fii ci Sénégal te it kii di Pape Bouba Diop dinañ ko rendre hommage ndax nit la koo xam ne mérité na ay hommage jeu toute la nation. ñu wax Ligue des champions juróomeelu ayu bés ci groupe A bi kii di euh, Bayern de Munich nga xam ne moom moo yore raay bi te nekk ci place bu njëkk bi moom dafa témboo ak Atlético benn bal la ku nekk dugal ci sa camp moroom mu mel ni daal Bayern de Munich Atlético nag daf ko euh, freiné ndax Bayern bi mooy euh, ñeenteelu yoon juróom ci juróomu match mu am ab ndam bii di match témboo bu jiitu boo xam ne am na ko Bayern mooy wéy di nekk ci place bu njëkk ba Atlético nekk ci ñaareelu place bi Salzbourg moom dafa dem fekki locomotive daan ko ñett bal ci euh, benn ci groupe B bi Shakhtar dafa daan euh, Real Madrid ñaar bal ci euh, dara Inter dem fekki Mönchengladbach mi nekk ci place bu njëkk bi dan ko ñett bal ci ñaar ci poule boobu nag dara leeragu fa ndax Mönchengladbach moo nekk ci place bu njëkk bi am juróom-ñett poñ Shakhtar nekk ci ñaareelu place bi am juróom-ñaar poñ am tamit Bayern Real Madrid nekk ci ñetteelu place bi ñaar équipe yooyu ko ci nekk juróom-ñaar poñ nga am ba tax na dara leeragul foofu ci groupe C bi Porto ak Manchester City dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa kaw morom City moo nekk ci place bu njëkk bi am fukk poñ ak ñett Porto nekk ci ñaareelu place bi euh, am fukk poñ Olympique bu Marseille nag moom am nag ndam ci Olympiakos ndax nag depuis bi ñu dooree euh, jongante bi léegi Marseille mu ngi doog a am euh, ndam ci groupe D bi Liverpool bu Sadio Mané moom assuré na qualification bi ko jëmale ci huitième de euh, finale bi gannaaw bi mu daanee Ajax d'Amsterdam benn bal ci dara Curtis Jones moo dugal. ba gannaaw bu ñu boolee ñaari xaaj yi juróom fukk minutes yu tegal juróom-ñett Atlanta ak Midland ñoom dañoo témboo benn ak benn la ñu def Atlanta moo nekk ci ñaareelu place bi am juróom-ñett poñ ak Ajax nekk ci ñetteelu place bi am juróom-ñaar poñ ñoom nag ñaari équipe yooyu dinañu xam kan mooy nekk ci ñaareelu place bi gannaaw bu nga xamee ne ñoom dinañu jongante ci seen biir. ñu wax ci programme toujours ci cinquième journée bi tey jii lañ koy na Krasnodar dina dalal Reims muy match bi nga xam ne ñaari équipe ya nekk ci suuf ñoo koy jongante ci beneen match bi nag ñaari équipe ya nekk ci kaw ñoo koy jongante Séville FC nekk ci ñaareelu place bi dina dalal kii nga xam ne moom moo nekk ci place bu njëkk bi di Chelsea am fukk poñ ñaari équipe ya ñoo tolloo même nombre de points. ci groupe FB, bi Dortmund mi nekk ci place bu njëkk bi am juróom ñent poñ dina dalal Lazio mi nekk ci ñaareelu place bi am juróom ñett poñ Bruges nekk ci ñetteelu place bi di dalal Zenit ci groupe G bi FC Barcelone mi nga xam ne moom moo ci ba place bu njëkk bi am fukk poñ ak ñaar qualifié na ba pare moom euh, dina euh, dalal Ferenc Ferencváros mi nekk ci place bu mujj bi Juventus bu Turin moom it qualifié na ba pare nekk ci ñaareel place bi am juróom ñeent poñ dina dalal ñetteel bi di Dinamo Kiev Barcelone nag bu Messi ak Juventus bu Ronaldo dinañu xam kan mooy jeexal ci place bu njëkk bi gannaaw bi nga xame ne ñoom seen bopp ci dernière journée bi ñooy daje fële ca Barcelone ci group H bi muy journée bu tàng nag ci diggante leader bi di Manchester unite am juróom-ñeent poñ di dalal Paris Saint-Germain bi nekk ci ñaareelu place bi am juróom-ñett juróom-benn poñ. Başakşehir nekk ci place bu njëkk bu mujj bi di dal Leipzig mi nekk ci ñetteelu place bi am juróom-benn poñ Leipzig ak Paris Saint-Germain ñoo tolloo même nombre de poñ mu mel ni daal ñett équipe bi di Manchester. Paris Saint-Germain ak Leipzig ñett équipe yooyu dinañu xool ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a qualifié pour dem ca huitième de finale ba ñu jeexale ko ak basket gaynde yu ndaw yi nga xam ne seen at motul fukk ak euh, juróom ñett ñoom nag ña ngay dem ca Caire pour Afrique afro basket ci afro basket boobu nag ñu koy amal ñett fan ci weeru décembre bi jàpp juróom-ñeent fan ci weeru euh, décembre ci xale yu góor ñi nag Sénégal dina ànd ci compétition bi ak Égypte Mali Mali Guinée ak Algérie ci xale yu jigéen yi nag Sénégal di ànd ak euh, Mali Égypte Mozambique ak euh, Algérie ñu jàpp rek ne ci xale yu góor ñi ñay dem ca euh, final ba ak ci kiy gagné ci xale yu jigéen yi ñoom nag ñooy ànd dem ca coupe du championnat bi nga xam ne moom la ñuy amal ci championnat coupe du monde bi am ci xale yi nga xam ne seen at motul fukk at ak juróom-ñett. Fallou Ndaw ci xibaarub tàggat yaram mbokk yi jeexale xibaar yi nag ak ëttub kërub yéenekaay yi xam ne bés bu yàlla sàkk ñuy génn ci miim réew di Sénégal waaye it soxna Mbane Mbuub di ca béy wàllu am solo ñu ànd ak moom ci revue de presse dal leen jàmm ci xëtu yéenekaay yi ñu jukki leen la ca gën a fes bokk na ca géewal politique gi solo yéenekaay indi waxi président Macky Sall jëmale ko ci militant yu APR ñoom ña ngay waajal yeneen i mbir bu ñu sukkandikoo ci quotidien yéenekaay APR parti buy say la ci xëtu yéenekaay boobee ñu cay wax accord yi ñeel jën yi te Sénégal sekk kook lu Union européenne yéy na yàbbi waxtaan ak acteur yamu ko sekkal mareyeur armateur ak industriel déggoo nañu ca Ndiaye mi wax ci xëtam fukki at ak ñaar gannaaw ba ñu sosee parti présidentiel APR gisatul ña ko sosoon woowuñu ma ca te it mësuñu ma ca woo loolee di wax ba dara Cissé ci Vox Populi waaw waaw ba tey ci populaire ñu cay xamle ni kii di Rangou lëmbee woon internet bi génn na prison ni ki démb ñu jóge fa nag daal di seeti la xew ci centre de redressement critique yéenekaay di xamle ni Jamra solal na mbubbu avocat kii di sëriñ Modou Kara Mbacké bu heure fanweeri nit jàpp nañu leen ba defeere leen ci kanamu procureur ba waaw waaw yéenekaay kaay bu groupe Futurs Médias di yëgle lu doy waar benn waay moo doon dóor doomam bu toll ci ñaari at ba faat ko gannaaw ay jooy yu metti ya xale bi doon amal waaye quotidien di xamle ni xale ba faatu woon ca géej ga doon wuyoo ci turu duudu papam ku wattuwul dina tëdd ñaari atu kaso ñay yëngu ci wàllum paj gi nag ña ngay artu ne ku wattuwul dinañu leen dégg tàggat yaram ak champion l'OMS dëggal na boppam te it Real saax-saaxee na ay chance am Manchester United Cavani pare na ngir jàmbaarloo ak PSG FC Barcelone Samuel ci dina ca jouer mbokk yi loolee moo gënoon a fes ci xëtu yéene kaay yi di leen jox di daje ëllëg ci yeneen xibaar mbanebub eh, ci revue de presse bi mbokk yi foofee sax la xibaar yi buure ci seen télévision régionale di prestige nekkoon xibaaru marax bi ci bésub alarba bi eh, yemoon ak ñaari fan ci weeru décembre ci atum 2020 di delluwaat di gërëm ñi xam ne bés bu yàlla sàkk dañuy seytaan eh, ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am nag ñi taamu suñu plateforme yi wala suñu par plate par suñu euh, euh, suñu support digital yi li ci melni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige di delluwaat di wax askan bi ne man ngeen wéy di télécharger seen application euh, Prestige TV ginnaaw ngeen demee Google Play su ko defee nag xibaar yu tukkee bitim réew bi réew mi di Sénégal ak Thiès ngeen man koo am ci anam bu nu mu gën a gaawee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur mbokk yi ëllëg yeneen xibaar yitteel bi réew mi di Sénégal ak bitim réew mbokk yi jërë ngeen jëf ba ëllëg incha